nekku sa yoon newu ci no no wife sa yaay bokk ci sa jabar bokk ci genre yooyu noonu no wife no kid xam naa baax li nga wax merci xam nga donc am na yoo xam ne si sa bul bul ko wax ci nit ay sa moroomu góor nga naan ko ay yaay jànku mbiri naaw ak genre yooyu et mala burger wi ma jazz jazz wi ma mail grand bi moo wax mail grand bi moo wax mi ngi ree rek waaw bismillah bismillah grand bi mi ngi ree rek mi ngi ree rek bañ duree jàmm wallaahi ku ma ko du ma la ko jégal loolu nag neexul de alors du ma ko toléré kenn quoi wax ah, ah, ah, ñu lay dégg grand. man man kañ man kay xaw ma sax lan la. <laughs> ah Aada moo tooñ nee nañ ah nee a malentendu la Aada tooñul malentendu. yow tooñaate kañ si yow baax saay sa àdduna yëpp da nga koo tooñ booy sa non non non non non wuy ma man dara dara dara sonalu ma sama waa ji dara sonalu ma man nag non non non jaa daa respecté de man respecté wu ma non wuy ma góor man wuy xam nga xam naa la. xam nga xam naa la. mën nga foog ne wuy ma mën nga foog ne xaw ma la mais xam naa la quoi. xam naa la bu xam naa la bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. moo tax am na c'est en